maaleykum waa soxna si Mariama ñu bàyyi la nga présenté te nga wax say tànk fii nga xamante ni ñu denc jigéen ñi tey nga wax ñu loo fi ut si woon tey. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu maa ngi lay nuyu Ndeye Marie wax dëgg lii dañ koy rafetlu ndax ramatulaay moo xool initiative bu rafet bi ndax xam ne ne ay jigéen na fi tëdd ay yaay ñoo fi tëdd ay soxna ñoo fi tëdd te buñ ne jigéen ak kaso day triste ndax moom mi ramatulaay danaan ma soxna Mariama nañu dem ci kaso yi di nemmeeku ñi fa tëdd ndax nattoo leen fi dugal te gëm naa ne nattu la tey bi ma fi duggee laa xam ne macha allah ndax gis nañ ni ñu nekkee ak ñi nga xam ne ñoom ñoo euh, euh, pénitenciers yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk gis nañ ni ñu yee gis nañ accompagnant bi gis nañ itam ni ñu recevoir mu dal suñu xel trop dama bëgg comme Ramatoulaye lii mu def na ko ñëpp di def ndax ñëw ci yu mel ne dafay delloo nit ci yàlla ndax wa gën na ma wan sama borom gën naa jege yàlla ndax boo ñëwee fii gis jigéen ñi fi tëdd nga xam ne nattu la wax dëgg dañ leen di massawu ñoom ñi fi tëdd ndax sa mbokk dugg kaso dafa metti ñoom itam seeni parents ndax itam boo amee mbokk mu tëdd fii toujours ngay indi añ indi reer dafa metti ñu ngi leen di mas waaye ñeneen ñi lañuy xool ci Ramses bi mu di indi ay don ku mën daal di jàppale ñi nga xam ne dañ fee nekk ndax Rama dafa jël propre moyen ñëw fi wax dëgg indi na fi indi na fi yi nga xam ne jigéen da koy soxla lu mel ne serviette hygiénique lu mel ne coton lu mel ne madaar lu mel ne savon lépp indi na ko fi ñu ñëw gunge ko nag wax dëgg ñun tam beneen yoon de ñu may fit def lu mel ni ndax dañ koy rafetlu napp yi ak euh, yeneen ak yeneen fii lañ koy jëndee ndaxte itam na nit ñi di ñëw même boo mënul indi don nga ñëw jënd ci nga xam dañ koy liggéey ñoom tam ñu mën a am leneen loo xam ne buñ fi génnee waaw ñoom ñoo koy defar buñ fi génnee ñu mën a am da leneen loo xam ne financement lay doon ñu mën ci di liggéey ndax neen looloo tax ñu jaay yu mel ni pour bëgg ñu fi génnee ñu bañ a euh, daal def leneen loo xam ne waa métier daal moo gën waaw rafetlu nañ ko di ñaanal nag euh, waa RTS yëpp ndax yéen ñëpp da cee jàpp ndax benn lam rek du yëngu ndax rama mënoon na jóg te du ngeen jóg te bu boobaa day metti mais yéen a ngi jóg accompagner ko li day wane ne jàmm la wane ne RTS famille la dañ leen di ñaanal yàlla gën leen kàttanal yàlla gën a kàttanal it seen directeur général ndax bu ko mayul woon feu vert du ko def du ko def Racine Talla ñu ngi koy ñaanal gudd fan di koy ñaanal yàlla saxal ko fi ba mu yàgg jiite ndax li kontaan naa ci rafet na trop maa ngi leen di nuyu ñoom ñi ñëpp jërëjëf ba beneen ah ñu ñëw nag ci ñi nga xamante ne ay naataango rama lañ depuis RTS wax dëgg yàlla mu doon fa suñu mag doon fa nit ku baax koo xamante ne nii bu wootee ñëpp ay teew ñeneen ñi ñëwul ca RTS ñëpp c'est parce que RTS liggéey ba la ñëpp mënuñoo teew waaye ñëpp seen xol ak seen loxo mu ngi ci biir ñuy laaj nag Aminata Bokum ki nga xamante ne tamit kenn la ci naataango Rama yi ca RTS moom tam lu mu xalaat ci liib akt bu rafet bii Rama jiitu jiital def ko fii ci euh, euh, campagnat bi xanaa waaw Ndeye Marie di ci sant yàlla di julli di julli si yonent bu tedd bi ñu ngi mayee kattan ak mën-mën ñëw jàppale suñu sœur yi parce kaso jombul kenn nattu rek moo leen fi dugal nattu wa bis bu ko yàlla jeexalee mu jeex tàkk di ñaax nag sama mbokk jigéen ñi ku mën na ñëw nga jàppale leen ndax di jombul kenn di gërëm nag garde pénitentiaire yi parce que ñoom boo leen fi fekkee xale yi bu ñu génnee seen kanam dafa leer mu won la leen ne jàmm salaam loolu lañ fi nekkee parce que yóbbuñu seen fit di ñaan yàlla mu leen fi dugal yàlla nañu fi génnee ci jàmm ak salaam ndey bari sama xol dafa fees parce que lii dafa métti yaa ngi dégg ñun ñu ngi ak suñu liberté ñoom kañ la ñuy am liberté xamuñu ko yàlla rek moo ko xam bu leen fi yàlla di dugal tàgguwu leen kon yàlla na leen fi yàlla génnee si jàmm ba pare ñu nekk ay jàmbaar di fi jàng métier béere bii ma sol fii laa ko jëndee léegi ñoom ñoo ma ko defaral ñuy defar ay namba yeneen yeneen ba pare nag di gërëm soxna Rama Boy parce que du association du dara ses propres fonds la jël initiative am la jël ñëw ne da leen di jàppale wax ko ñun ay naataangoom ñu gunge ko ci lii nii parce que lii nii wax dëgg yàlla c'est à ba pare képp ku ko mën ñu ngi ñaan yàlla nga ñëw nga def ko parce que soxla nañ ko waaw salaam loolu laa amoon lu ma ciy wax waaw. naataango Rama Boy depuis RTS ndax ni ma leen ko waxee rek ñëpp mënuñoo ñëw. waaye bu mënoon bu ñëpp mënoon a ñëw RTS kon kenn du fa des parce que Rama Boy jina ko nit ñi ci RTS lépp lu mu nekk rek ñëpp dañ ko cay fekk njéeme xanaa rek ñu laaj la lan nga lan nga gisee acte bu rafet bii Rama booy def. waaw euh, Ndeye Marie maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu ñëpp ñi ma àndal fii ak ñi ma taxawal euh, di wax ne acte bi Rama Boy def acte bu noble la acte jullit la acte ku gëm yàlla la acte ku nangu dogal la. parce que tamit ñi fi nekk ñu sees si leen ngir euh, indil leen li nga xamante ni mën nañ koo jëfandikoo ay doomu aadama lam comme ñun ñii di jullit ñii di chrétien waaye ku ci nekk yàlla rek nga gëm ndax benn yàlla bi rek la. man tamit c'est pas une première fois ma ñëw fii man yenn saa yi damay ñëw di nemmeeku seeni liggéey di ko wane ci tele bi parce que ñoom ñëpp ay sénégalaises lay ay doomu réew mi nan donc boo nekkee ci réew mi di liggéey war nga ñu wane li ngay liggéey te fan koy wane nekk foo xamante ni mooy télévision nationale ndax ñëpp a ko moom Sénégal yëpp ko moom sénégalais yëpp ci bokk. donc ñoom jar na ñu ñëw di saytu ñoom li ñuy liggéey ngir war koo wane àdduna yëpp gis ko euh, comme ni ko sama naataangu yëpp waxee lii ñu fi defar yëpp fii lañ ko defaree dañ fiy létt dañ fiy ñaw dañ fiy def coiffure dañ fiy def li nga xamante ni moo di Euh, ay transformation céréales local dañ fiy def transformation fruits et légumes te fii la ñuy defee formation bi ay bonne volonté ñoom ñooy ñëw fii di leen defal formation ñu am seen i métier ba mu bënn fi foq fi ñu ci njëriñu di ko jaay di ci dimbali seen i njaboot di ci dimbali am na ci ñoo xamante ni dañuy jëlee fii sax dépense di yóbbu seen i kër kon xam nga ni jom jooju fulla jooju ak fayda jooju mi ngi ci jigéen te di jug ci jigéen ilaa abadan donc euh, Ndeye Marie dama lay wax ni rek kontaan man saa yu ma fi ñëwee sama xol bi dafay sedd ajaarama yàlla na la yàlla yokk ba nga yëg ko lépp loo fi dugal muy dërëm muy butut yàlla na ko yàlla ful def sotti ko barke mu dem ci sa njaboot di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp ñu jox soxna xi kàddu ki nga xamante ne nii tamit xarit la ci Rama Boye wax dëgg yàlla ñëw jàppale si ko si bësam bii nga xam ne daf ko ñor soxna si loo ciy sànni asalaamaaleykum wa rahmatullah man daanaka lépp lu ma waroon wax rek nit wax nañ ko fii la laa fi jëlee xol bu tooy laa fi jëlee parce que ñii fi nekk gënuma leen gënuñu ma yàlla moo leen teg natt bi ñaan yàlla na leen yàlla teggil natt bi ci bu dul yàgg dara tey li ñu def ba ñëw fii yàlla buñ ko defati yàlla na fi képp kuy jigéen yàlla bu fi duggati ci barki yonent bi man nag daanaka amatuma dara lu may wax maa ngi sant Ramatulaay Boy parce que lii mu def nii propre moyen noonu la ko defee am na ci xol bu yaatu yal na ko yàlla yokkal lii mu fi def nii ren balaa déwén yal na ko yàlla defal lu ko ëpp ëpp ci barke yonent bi li muy mën a wax ci tele bi yëpp macha allah taxut mu mën ko ndax foo ko fekk mu ngay làqatu fu mu toll mu ngi jàdd di nemmeeku yëre bii mu sol ngeen gis nii fii la ko jënd see saa su nekk ndax chaque fois bëgg na li muy am di ko liggéey di ko am di ko partagé ak sërëm yi nga xamante ni ñoom la yàlla nattoo ñu nekk fii si biir rawa nag munoo bañ a wax wax dëgg yàlla il faut nga sànni sa kàddu ñaanal nag ñi nga xamante ne ñoom lañ fi fekk yàlla buñ ñëwati fekk leen fi doomu sëriñ nga boo ñaanee rek yàlla dina nangu macha allah ñaan gi rek ñu bàyyi ko yaa daama moom waaye man maa ngi maa ngi leen di gërëm di leen sant di nuyu ñëpp eh, di wax rek ne dimbalewuñu wuñu bandi dimbali wuñu wuyu mais nit bi être humain bi la ñuy lañ doon ñëw rek jàppale suñu ay sœur lañu comme ni nga ko waxee ay jigéen lañu te jigéen xam nga dooleem daa bëriwut moo tax ñu ñëwoon rek indi leen loo nga xam ne dañ koy soxla euh, te di ñaan yàlla rek mu bañ ko fu ndakkal euh, parce que yàlla moo mën lu ne lépp lu nga xamante ne rek war na leen ko mën a jàppale yàlla yombalal ñu ko euh, ci barki sëñ Babacar si di wax rek ne bon ñi ñaan ñëpp daal ñu leen di faral di doxantu fi di leen jàppale même boo leen joxul. nga ñëw jënd si yi nga xam ne ñu ngi koy defar maanaam ay sër yu rafet ñu ngi koy ñaw ay napp ñu ngi ñëw comme ni ngeen gisee mbaxane Aminata bi man robe yi may sol ñoom ñoo ma koy ñawal donc loolu rek dimbal la ñu dimbal leen pour que bu ñu génnee fii am ci lu ñu jàpp donc euh, maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp surtout képp nga xam def nga sa dërëm rek maa ngi lay si gërëm di la sant la ñaan yàlla na la yàlla jàppale ba mu fuule di li nga xamante ne rek euh, moom nga moom nga yor waaw gërëm xam naa ne wax ji bëri na ndax bu commencé wax rek dafay jooy kon nag mbokk yi ñoo ko gisandoo ñuy ñaan rek ñi nga xamante ne ñu ngi ci biti te seen loxo jot seen ginnaaw ñuy ñëw di gestu ñi nga xam ne ñoom la yàlla nattoo ñu nekk fii si biir ndax si biir jommul kenn fu ne lay jóge ku nekk mën na fee dugg jommul kenn di leen jaajëfal yéen ñëpp ñi nga xam ne yéen a ngi doon seetaan acte bi ndax filmer ko taxu ñoo jóg waaye dafa di booy def lu baax la salaam Matlabul Fawzeyni ñoom ñooy ñi nga xamante ne rek ñoo ñuy jàppale mu sëñ Mourtala waaw sëñ Mourtala te ci 18 safar bi ñu jub ñu ngi ñaan rek sëñ Mourtala moo gën a yokk ñaan bi ah li nga xamante ni moom nañ ñëwoon seet si ñi yàlla jàppale leen rek euh, tamit ci barke sëñ Touba parce que tamit beer bi ñu nekk moo ko waral ñu génn leen ba feexal la ñu ñibbiwaat seen kër. amiin amiin loolu la ñi di ñaan jërëjëf mbokk yi ni ko Rama booy waxee rek ñoo ko gisandoo di ñaan rek ñi nga xam ne ñu ngi si biti ñuy ñëw di gestu ñi nga xam ne ñoo ne ci biir camp yi ñu ne ci dispensaire yi dem ci armeel yi ndax ñëpp nitu yàlla lañ yàlla mooy may mooy tege nattu